في di santu bax baax bi di ñaanal yalla mu and ak lool ak wër mu yagg fi lool lool lool mbàkke muy continuer duñu tette ndax euh, sëñ bi kuko xam kuko gis xam ni ku bax la kiliftef gi motna na waaye xol gu rafet gi mooy gën a dalal taalibe yi te loolu it euh, bi ma ñëwee loolu laa gën a euh, seetlu ma kontaan ci lool ci lim ma dalal ma ak suma njaboot ak ñu ma àndal euh, mu continuer di feddali suma kóllëre rek suma diggante ak moom ndax bi ñuy waaj ubbi jumaa bu mag ba Masalik yàlla dafa defoon ñu dem ziyaare ko it ci ay anam yu rafet tamit mm, yàlla wërsëgal nu gis ko moo ko soxna Baali Muntaxa ak sëñ Koso mi foofu it mu teraloon ñu ñaanal ñu euh, te ku xam sëñ bi xam ni euh, boo gisee sax réew bi bu ñuy wax yi ndax euh, koo gis xol baa ngi féex xam nañ ne leeru sëñ bi ak jëfu sëñ bi moo fi nekk ndax moo ko waral moo waral jàmm ji nga xam ne ñu ngi koy commencé yëg ci biir réew mi euh, yàlla jaarale ko ci loxoom mu fexe ba suñu kilifa yi di ànd ñëpp gis leen loolu de di gën a dalal xelu sénégalais yi donc may ñaanal suma mbokk murid yëpp di ñaanal mbokk Sénégal am mbokk julit képp ku ci ñëw ci xéwalu Serigne Touba bii yàlla indi la si jàmm ak salaam te la nga fiy wut si di ko ñaan si suñu borom defal la ko euh, boo ñibbi nga ànd ak dal googu suñu borom xéwal gi nga xam ne moom nga ci wut woon nga am ko bis boobu la tax a jóg ñoom ci rafet jot bu baax di am mbégte lool lool lool nag moo xam ne neexul yombul ci noonu man koo tudd ni mu ni toll ci noonu waaye nag ñun ci doy na moroom xel yaakaar naa ne yow sax xam nga ne bég nañu nuyu itam xam ne bég nga sëñ bi itam xam nañ ne bég na te loolu rek mooy li am solo sut jàmm ji nga xam ne am nañ ko ci sut kilifa yi sut kilifa yi àddina yooyu ndax mu ne xam na ne naka jekk. jàkka loolu mooy rolam ku ne xam na ne kilifa diine itam loolu mooy rolam ndax ñaari kilifa yoo xam ne kenn ku nekk frustration mën naa andi frustration ay téeméeri nit ay junni nit ñooñu nga fexe ba loolu nga dàq ko ba loolu dem ba bañ loolu dafay dalal xel doomu aadama yi dafay dalal réew mi daf koy may ak dal kon nag loolu itam ku ne xam na ne sëñ bi def na ko yàlla yàlla fay ko yiw ci loolu te li mu bëgg yàlla saxal ko ci xol yi saxal ko ci xol yi kilifa yooyu mu doon boole. safar